jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey jii nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci maris gannaaw accident bu métti bi nga xamante ni daal dinay am ni kii barki démb loolu nag sabab suñu ay tànk ci kenn ki nga xamante ne ni nekkoon na ci oto boobu doon wuyoo ci turu son yi bu yàlla dogal nag mu daal di ñàkk bakkanam loolu nag sabab suñu ay tànk file ci maris ñi nga xamante ne ni ñoom la son yi bu sekkaloon jàmm wala sax fi la nga xamante ni ay xaritam fi la ñu nekk gannaaw ci suba nag ba ma woowee famille ñu ne ma ah, son yi bu mu ngi fële ca Touba la dëkk loolu nag tax ma ñëw ci ay xaritam daal di leen seet si bu ko defee tamit ñu joxe ay kàddu yu seede ci son yi bu mi nga xam ne moom moo fi ah, daal di ah, ndax ki nga xamante ni moo di son yi bu naka la ñu yëgee xibaar bi nga xamante ni moom moo ko daal di dal damay dugg ci biir rek daal di gisee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk daal di leen tàllal micro gannaaw ba ma leen ma sawoo jaale leen li nga xamante ni moom la ñu bokk ñaanal ki nga xam ne yàlla moom moo fi daal di bàyyeekoo di son ndaw si eh, fa mu jëm gënal ko fi nga xamante ni fi la jógee ci barke weeru koor gi xalil bu baaxee rek ma daal di dugg gisee ak ay xaritu son bu daal di leen taalal micro ñu daal di ki waxtaan. Eh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñu leen nuyu di leen ziar waaw. tur bi naka la. man Modou la Modou Diong. Eh, gannaaw ba ñu la jaalee seen mbokk bi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo di wuyoo ci turu son yi bu yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. ah son yi bu demee ku baaxoon la moom waaw boobu noonu ba ñuy mujjee gisee sax. maa ngi koy tooñ mi ngi ñëw fii xeeñ parfum bu neex ma naan ko waa yow xanaa dañ la invité ndogu si la reetaande daal di dem nekk boobu laa koy doo mujje mujje gis waaw billaay ku baax nag waaw ku yaru amul benn problème daal moom amul fii benn problème bu ñëwee nuyoo dugg néegam après ak liggéeyam jeex na waaw nan dama koy yem moom dama koy tooñ rek dama ko doon tooñ rek muy reetaan rek waaw billaay wallaay. naka ngeen yëgee rek tiis bi nga xam ne moo ñëw daal di dal ci seen kaw. non daf ñoo bett carrément kay bett carrément ci suba sa sax lañ ma woo boobu maay si tata bi di ñëw mais daf ma bett carrément de billaahi. d'accord ndax jot nañ la expliquer son yi bu ci yan anam la daal di génne àdduna. waaw nee nañ soog la parce que da doon ñëw fii nii non dafa génnoon presque trois heures du matin sama waa ji moo fi nekkoon après mu ñëw. mu ne ko wàññi ma jàllaabe bi après mu mu sol ko affaire bi yem ko képp mu ne kon baax na bul bul ko wàññi si la dem sol blouson am après daal di dem xam naa rek mu dem si fu muy fréquenté naa copains yi am fu muy dem mu ne leen ah kon defuma dara xam naa xaar ma ànd ak yéen xam naa noonu lay demee rek damaa wax daal sama xalaat rek naa waaw léegi si lañ dem daal di naa fee si. à part Padoa bee kii bi usine jën bi foofu noonu naa lañ perdre contrôle rek daal di dugg oto oto kii bi oto jën bi waaw billaahi affaire bu metti kay. bu jot ngeen a xam ndax am na jabar wala am na doom walla waaw non moom amul jabar nag waaw mais xaw ma na ndax amul doom doom nag waaw mais amul woon jabar mu waaw. kon ñaata nit ñoo nekkoon ci oto bi ñaata nit ñoo ci jot ñàkk seen bakkan wala. waaw oto bi ñetti personne la wax waaw mais ñaar ñi ñoom ñoo mujj a ñàkk seen bakkan. chauffeur bi moom nee nañu woon mi ngi urgent lañ la ñu waxoon quoi waaw. waaw baax rek amul benn problème am musul am kenn nag problème fii nii waaw. waaw football nañ am nañ mas ñu football am nañ ay souvenir daal si moom ay photo lépp kay. souvenir yi nga xam ne moo la gën a marqué ci moom tey mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo yan souvenir la. ah dootuma amati ku ma tooñ man ñàkk naa dootuma amati ku ma tooñ de waaw heure bii day ñëw heure bi lay yeew bu ñëwee taxaw fii seetu seetu ma tooñ ko mu daal di ree daal di génn dem billaay ñàkk nañ daal waaw. Ah. te ba ñu ne la son bu daal dinay def accident daal di génn àdduna lan nga yëg. non damaa feebar journée bi yëpp liggéeyuma sama pop bi di metti ba guddi gi. liggéeyam fii laa tëdd di nelaw ba ma jógee hôpital euh, euh, Gaspard Kamal fii laa tëdd di nelaw noo gis naa ñu koy puus di ko dugal si kii bi si ambulance bi pour yóbbu ko fee CTO mais gisaguma carrément quoi waaw waaw non non gisuma dañ kaa muuroon waaw waaw xanaa di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko xaare ko àjjana waaw te si tuy jour yu koor yu mujj yi mooy jouru njéggal waaw di ko ñaanal yàlla boole ko si ñi ñi ñi muy njéggal waaw waaw koy jërëjëf waay jërëjëf. kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Lamine Ngingue. Lamine gannaaw ba ñu la jaalee eh, seen xarit bi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo di son yi bu mu nekk ki nga xamante ni yow la mu mujjee waxal la tàkk muy génn àdduna yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. waaw son yi bu de wax dëgg yàlla nit ku baax la moom eh, te itam yàggut ci koñ bi yàgg na fi mais nekkin bi ñu fi nekk itam nekkin bu rafet la woon eh, nekk nekkinu jàmm di tooñante comme ay frère. bu mu fi jógee nag ay une heure matin jàpp deux heures la fi la fi jógee ba 3G daal xam naa côté yooyu lay doon léegi man boobu maa ngi ñëw wàccaguma euh, bi ma euh, bi mu ñëwee euh, wàcc parce que heure yooyu lay wàcc moom day guddee ñëw léegi bi mu ñëwee mu indi jalaabeem ne ma damaa bëgg nga wàññil ma ko léegi nag bi mu ko solee jalaabe bi yem ci moom ma ne ko lii baax na après ci la dugaat ci biir ñëwaat ne ma. waaye ma kii nu mu di wax di yoroo mille pour ma kii la jox la cinq mille waaw ma ne ko en ah, kay ma weef ko cin mille mu jox ma cin mille après ci la jëndal seen waa kër courant euh, ci la deme nag mu gënaatee maa ngi naa ko sax foo jëm heure bi waaw ndekete yow booba laa booba laa koy mujjee gis waaw. yi bu daal dina génn àdduna. waaw kii Modou mi moo ma ko wax. Euh, moom moo woo téléphone wax ma ko mu doy waar lool waaw parce que nit ki nga mujjee gis euh, guddi man cinq laa tëdd ay neuf moo du wax ma ko mais boo xoolee image bi ni mu la rombee ak ni mu doon wax ak yow day day doy waar quoi bi mu defee accident bi jot nga ko gis walla non non man gisuma ko damaa demoon ci morgue bi rek mais gisuma ko waaye. yan relation ngeen amoon yéen ñaar. waaw relation kii comme ay frère rek tooñante kafre waaw mu nekk nit ku baax ku woyof ku bari jàmm waaw mais ku baax la daal wax dëgg yàlla loolu lañu xam ci moom. te yan souvenir moo la gën a ci son yi ba mi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. waaw comme niñ doon niñ doon tooñantee rek day ñëw fii daanaka chaque jour mu ñëw Modou wàññil ko ay tubéy ndax dafa gàtt quoi tubéy bu mu jënd day ñëw Modou wàññil ko di ko tooñ waaye. mais. merci beaucoup ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la masaw. waaw ah, merci beaucoup yéen itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen site bi yàlla yokk ko ba làq ko fi àq yéegul incha allah jërëjëf. maa ngi lay ñoo lay fay soxna si. tur bi naka la. man sëñ Fallou laa tudd. Sëñ Fallou gannaaw ba ñu yegee euh, tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw ci seen xarit bi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo di wuyoo ci turu Sohibou euh, gannaaw ba ñu la ko jaalee yan kàddu seede rek nga ñu mën a jox ci Sohibou moom nga xam ne tey moom moo fi daal di jóge waaw xanaa di am mettit bu baax rek euh, bu ñu bett trop di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko aljana ya gën a kawe wax dëgg xel dal na ci moom bu baax rawatina ci weer bi mu dem ak jour bi mu dem soin bu de liñ ko xamal muy euh, bari jàmm euh, mën na sonn ci nit sans xaar ci dara amul jour bu yàlla sàkk fajar bu mu marul flam suy jàng alxuraan sinab kon donc mën nañu wax ne lu rafet ak lu baax rek ci lañ ko xam la mu jóge woon Touba bi muy ñëw Ndakaaru fii jóge ko ca daara ja moom la wéyee ba ni may wax ak yow ba biñ ma koy tàggee kon donc rafet nañ njor ci moom bu baax a baax. d'accord naka rek ngeen yéegee tiis bi nga xam ne moo daal di ñaw dal ci seen kaw. waaw metti rek metti trop te bettuñu trop parce que mosuñu yaakaar ne loolu dana dal ci kawam. ka na yaru na baax na suñu daal. kenn mënul expliquer li nekk ci moom yëpp. waaw man nag fekkewuma ko mais dañ ma wax ne soog la waaw. Euh, xam naa nag ñoo ko mag tuuti mais bëriwul. waaw moom nag euh, doon woon liggéey fii mais daf fi doon jaar su amoon oto bu muy liggéeyloo tamit daf ko fi doon indi mais suñu wëlëree la woon daf fi doon jaar. temps en temps toog ñu waxtaan ka foore après mu dem man nag su ma juumul jeudi boobu maa ngi ko envoyé maa jox benn xaalis sax ne ko booy dama dépool ma wéeb fii jeudi laa gëj a gis waaw saa bu fii daf ñuy song ñuy bëree di kaf di foddiree moom daal manqué nañu bu baax daal dëgg fa yàlla yëgee xibaar bi ban yëg-yëg nga daal di am ak ki nga xamante ne ni ni ngeen amoo woon complicité nga xëy rek ñu ne la daal dinay génn àdduna ci accident. waa juróom mettit daal waaw doroom mettit mettit bu bu bu bu bu metti sax boo xam ne li ma ci dal rek moo ci dal ñëpp waaw. di dellu di ko ñaanal suñu borom rek incha allah te fas ñu yéene wàcceel ko fii benn kaamil waa online yëpp incha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Grace Faye. tur bi naka la. Moussa. Moussa lan nga ci son yi bu nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeeku. waaw sooy bu ndey sama xarit la woon waaw ñoo bokkoon ci milieu jaay oto yi ci laa ko xamee woon quoi mu fi loon ñëw nag tout le temps su wàccee daf fi loon ñëw quoi. Hmm. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xamante ni moom la ñu daal di bokk yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox ci son bi nga xam ne tey moom moo fi waaw li ma ko mën a seedeel moom mooy tey ku yarula woon respecté diineem waaw daan na julli di woor waaw bi ma ko mujjee gis sax yàggul parce que démb ci guddi rek gis naa ko waaw loolu laa xamoon ci moom quoi. bi accident bi di am wala. waaw avant accident bi waaw. jot ngeen a weccante ay kàddu foofu wala. bon jotuñu woon weccante ay kàddu ma ko gis rek mu wàcc après bon si guddi gi ay 22 heures ma gis ko muy dem këram su guddi gi la accident bi am quoi. naka rek nga yëgee tiis bi nga xam ne moo daal di ñëw rek daal di dal ci seen kaw. waaw bon métti na de xam nga moom ku ñàkk moom loolu moom doo ci am bànneex ñàkk waaw métti na mais dañuy dellu sant yàlla rek te xam ne suñu borom moo ko fi andi woon moo ko jëlaat waaw ci fay bi la ci landeme bi laa ko yëg man waaw ne accident bi métti na trop bi ma xoolee vidéo yi sax damaa xam ne que ne métti na trop moom mais yàlla na ko yàlla xaare àjjana rek loolu lañ koy ñaanal. mais bi nga xam ne def na accident bi jotoo koo gis. non jotuma ko gis moom waaw bi ma ko gisee daal ci 22 heures yi laa ko mujjee gisaat waaw. accord yan souvenir tey moo la gën a marqué ci sa xarit bi nga xam ne tey moom moo fi daal di jóge waaw moom moom bëriwoon na kaf ak man trop trop trop waaw man moom grand am laa woon sax mais dama wàcce woon sama bopp ba mel ni comme moroomam laa ko def sama moroom waaw moom moom sama xarit la woon quoi daan na ñëw fii foo man bëreex man waaw nit ku baax la yal na ko yàlla xaare àjjana kese moo lañ koy ñaanal. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ko jaale bu baax a baax di la masawu aussi. waaw waaw loolu moom yal ko yàlla xaare àjjana. te yërëm ko waaw ñun nag mu bàyyi ñu fi ba si kanam parce que ñàkk moom dafa métti waaw loolu laa koy ñaanal. merci beaucoup. ok jërë ngeen jëf mbokk internet ci doon safoo di seetaan site bi di wasaare nii lañ leen ko waxee woon tey ñu nekkoon file ci maris ginnaaw génnuk àdduna ki nga xamante ne nii moo di euh, son yi bu euh, ci accident bu metti boobu nga xamante ne nii daal dina woon am euh, moom ak yenn xaritam yi nga xamante ni ñoo àndoon am ñaar ñoo xam ne génn nañ ci àdduna kenn ko xamante ne ni mu ngi hôpital waaye ñuy ñaanal son yi bu mi nga xam ne moom moo fi jógee ak paate yàlla yërëm leen xare leen aljanna firdawsi fa ñu jëm gënal leen leen fi nga xamante ni fi la jóge fi ndax dégg ngeen ay xaritu ki nga xamante ni moo di son yi bu seede yi nga xamante ni joxe nañu ko ci ki nga xam ne moom moo fi daal di jóge mu nekk seede yoo xamante ni seede yu rafet la seede yoo xamante ni yàlla bu yàlla tas yaakaar benn yoon son yi bu yàlla na ko yàlla yërëm mu yegale ndawam fa ca ajana waaye tamit ñu leen di waxaale rek li nga xamante ne nii moo di yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew tey wut GP bu wër te wóor GP bi nag yaakaar naa ne fu ngeen mën a nekk ci euh, bitim réew ñun ñoo leen di fekk si ba fa ngeen nekk daal di leen jëlal seen euh, yóbbante indil leen ko file ci Sénégal joxel leen ko ki nga xamante ni moom ngeen bëgg ñu jox leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen am GP ba xamante ni Sénégal lay jóge tamit di dem euh, bitim réew bu ngeen ñu woowee rek dinañ ko ñëw jël si yóbbul leen ko fale ca bitim réew am na fi mu nekk ni GP yu wóor yaa ngi noonu numéro yaa ngi noonu ci suuf bu ngeen ko xawlee di ngeen ko gis woote leen si numéro yi fu ngeen mën a nekk ci bitim mën a nekk ci Sénégal te bëgg seeni bagage dem rek woote leen ci numéro yooyu dinañ leen fekk si ba fa ngeen nekk daal di leen yóbbul seeni bagage teg ko ci loxo yu wóor di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal xale sama doom sama caméraman di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di wasaare di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf